génnuk àdduna wajur bu jigéen rédacteur en chef bu journal Le Témoin bi nga xamante ne mu ngi wuyoo ci turu Abdou Karim Diarra wajuram bu jigéen dal dinay làqu mu nekk nag ab tiis bu dal ci ndoddug presse sénégalaise Abdou Karim Diarra di rédacteur en chef bu quotidien bii di témoin da dinañ ñàkk waajuram bu jigéen bii di wuyu ci turu Adji Mariam Sidibé bile xibaar kuréel gi ëmb kullu journaliste fii ci Sénégal ñu ko daal di xamle ñu ngi leen di yëgal génn àdduna waajur bu jigéen Abdou Karim Diarra nekkoon directeur de publication bu Direct Info jamono ji mu nekk rédacteur en chef bu quotidien bii di le témoin loolee la ñu fa daal di bind juróom bu jigéen di Adji Marième Sidibé génn na àdduna ci dimanche bi fii ci diwaanu Rufisque faskine nañ ko nag jébbal boroomam ak tey ci altine bi bu 11h jotee fële ca sëg yu caw leen levée du corps ba nag ñu ngi ko jàpp ci juma imam Aliou Ndoye bu Colobane nekkee ci sud bu Rufisque loolee tax ba rédaction bu leeral TV ak leeral point bokk ak ñoom bile naqar di jébbal suñu njaal Abdou Karim Diarra ak njabootam rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay jege ñaaleem ñu ñaanal yàlla nag mu yërëm ko dal di koy xaare aljana